Abdoul mbay waxum jaaxle la wax parce que question bi justice tranché na ko homologué nañu rapport bi nga xam ne expert bi def na ko xamal justice ni Bocar Samba Dièye dañ koo jaay doole nangu ay bien xamal justice ni amul benn traite boo xam ne nekk na ci diggante transaction bi Bocar Samba Dièye def ak fournisseur am xamal justice nii compte Bocar Samba Dièye am na alal ju takku ju fa nekkoon joo xam ne CBAO luubal na ko te dañ ko ko war a delloo loolu ñun waxuñu ko expert bi nga xam ne justice moo ko jël pour mu càmbaral ko diggante Bocar Samba Dièye ak CBAO lu ñu jote moo ko wax donc Abdoul Mbaye bu dellu see moom di wax ni moo rangé traite wala di wax ni moom traite bi feeñ na waxu waxu ku jaaxle la parce que tamit euh, nit ñi xam nañ nu mbir mi tëddee CBAO nag bu soxlaa alalam xam ne fu mu koy seeti waaye pas ci Bocar Samba Dièye parce que Bocar Samba Dièye liggéey la ko sénégalais xamee bu muy métti mu leen di jàppale di di fexe ba ñu am ceeb di am dugub prix yi di accessible ba tey mu liggéey alalam te tojul kees sàccul triandewul comme boog CBAO ki ko triande ki jël alalam bu dee jël nañ alalam xam na ki ko jël te war na mën a dem seeti ko parce que kookoo ngi wër plateau yi di ko défendre ti défense boo xam ne amut njëriñ parce que justice homologué na déjà rapport bi te ci rapport boobu la ñuy liggéey këyit boobu décision bi dana génn te buñ ko génnee incha allah danañ ko exécuter te buñ ko exécuter góor gi dana jot alalam ba mu jeex tàkk bu soobee yàlla noo waxaguñ ñu kañ la te bu soobee yàlla dana ñëw incha allah.